waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziare euh, di wax ni moment bi ñu toll na ni ñi def très ci information yi ndax intoxication bi dafa bëri lool ndax depuis coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu ànd euh, def ali alliance dafa tiital euh, waa benn Bokk Yaakaar yeeg ñeneen ñi léegi nag daanaka li li nekk ci presse li jëm ci ay ñi ñuy dafa jéggi dayo chaque minute wala chaque ay da nga mën a am. ay information yoo xam ne ay faux lay doon waaye day jaxase xelu askan wi parce que moment bi bëgguñu stabilité am dañoo bëgg xelu askan wi jaxasoo lan moo tax loolu parce que wàllu ak yeewi niñ àndee ànd bi dafa nekk lu straté stratégique lu jéggi dayo loo xam ne daanaka mën nga ni élection yi bu ñëwee minimum minimum cent nangam député yeewee wàllu danañ ko am te boobaa benn bokk yaakaar day nekk minorité ci assemblée nationale loolu nag depuis ñu yëg loolu Euh, en général état euh, wala euh, parti au pouvoir ni ñu daan gagné da ñëw dem ci département yi département yi pour nga gagné ko yombul parce que mën nga gagné commune bi wala nga gagné ville bi waaye pour nga gagné dëkk dëkkaan ci àll bi yooyu yombul loolu état a gagné parce que yooyu en général ay gaayam ñoo fa mën a nekk nekk partout la état gën a moo tax en général nga gagné commune moom mu gagné département boo xoolee élection yi jàll département yi ëpp état bi ko gagné kon loolu moo koy wanal boo gisee depuis indépendance ba léegi état mooy gagné euh, département yi ci euh, législative yi ak ci wàllu yi ak ci euh, kii maanaam communes yi waaw mooy territorial yi daanaka yëpp boo xoolee maanaam état mooy gagné département yi te ku gagné département yi di ëpp ci département yi daanaka da ngay gagné li ëpp ci kii député yi léegi ren nag mu amaat leneen lu bees mooy yeewi dañoo fexe ba ñoo ko wàllu ñu fu ñu jëm ci département nañ fa bootante ma département bu ñu dem nga xam ni yeewi mu fëpp doole wallu bu fa posé candidat ñëwal bootu ci yeewi département bu ñu dem wallu ëpp fa ëpp fa doole day ñëw bootu ci wallu léegi nag waaye national bi nag moom euh, bu ñu paree kenn ku ne sa liste bopp nga am nga xam ni yow la nga am lépp ci Sénégal boo ko boolee dañ ko yóbbu sa liste nationale yow yaa koy moom nga dajale ko la nga am ci yeeyu ba tey la mu am ci national bi yëpp boo ko boolee dañ ko yóbbu ci liste nationale am nga xam ne kon boo xoolee ci national bi kenn kon sa liste bopp nga am maanaam Sénégal partout yëpp boo ko boolee am nga benn liste boo xam ne la nga am ci Sénégal lépp dañu ko ci dajaleel foofu ak beneen liste boo xamee ni lañ ci am Sénégal lépp dañ ko dajale yeeyu foofu léegi nag ñaari façon yii nii yeewi li muy am ci liste nationale bi di ko am ci liste wala di ko am ci liste nationale ba pare ñu demaat ci liste départementale yi ñu amaat ko fa ñoom ñaar loolu xataan loolu ala kulli xaalin état mënu ko maanaam euh, benn bokk yaakaar mënuñoo gañe Euh, foofu maanaam foofu moom mu leen mun ñoo gagné ndax kii lam am ci liste nationale bi mooy proportionnel bi maanaam après lam am ci département yaag commune yaag yëpp bu ñu ko boolee dañ koy compter mu nekk nangami député yeewi lam am moom it ci national ba ak euh, département yi dañ koy boole ñu compter ko mu nekk nangam ci ay député léegi nag loolu boo ko boolee rek foofu rek daanaka mën nañu raw benn bokk yaakaar lu bëri nga boole ci ak département yi ñu jot a gagné loolu dañ cee dañ ci mën a amaat lu bëree bëri moo tax fi mu ne nii liste euh, département bu Dakar bii ñoo xam dañ koy bëgg rejeté wala ñu ciy def ay ay tappale donte sax jàllagul parce que euh, di benn direction la rek waaye boo rombee direction bi cour d'appel mi ngi fi cour de cassation mi ngi fi conseil constitutionnel yëpp mën nañ faa yéeg ndax euh, yooyu ay étape boo gisee parti yi waxaguñ na ñëpp militants yi toog déglu teey parce que stratégie wàllu électoral aju xët-xët xel la am na fu mu laajee xët-xët waaye boo fa eggagul bu ñu fa eggul gars yi duñ la ci woo dañuy woo doxee xel parce que xam nañ voies yi ah, léegi nag gars yi ñu ngi ci voies yi di topp ndànk par ndànk te bu ñu ba egg sax bañ dañoo annulé Dakar sax nga xam ne sept députés la ñuy perdre Dakar en tant que département Dakar waaye teewul département Rufisque mi fi département Kër Massar euh, département euh, euh, ak yeneen département yi Sénégal ñi ngi fi yooyu buñ ko boolee wàllu Sénégal ak yeewu askan wi wàllu dañuy gagné bu baax a baax léegi nag man li ma ragal mooy benn bokk yaakaar am nañ folklore seen liste maanaam am double maanaam am na ci kon mënuñoo jàll léegi bu ñu forcé ba jàll it daanaka loolu dañ leen xañaat lu bari ba duñ mën a ñoo bañ a gañe damaa ragal ne ñoom bëgguñu élection yi am waaw dañoo bëgg ñu amaat benn dàq bu ñu dàq élection yi bu ko defee ñu koy dàq ñu mën a fexe ba tas waa diggante yeeweek wàllu ba dootu amati ñu tasaaroo bu defee ñu doog a a ñëwaat élection mu jekku leen waaye moment bi boo gisee leader yi ni tekk dañ ñëpp def ni tekk rek di xaar ñi intoxiqué di wax ci média yi yëpp li ci ëpp benn bokk yaakaar la fu ne ñoo fay dugg di wax waaw yeewi tas na yeewi def nangam Barth nee nangam Khalifa nee nangam Sonko nee nangam te dara amu ci moo tax ku ci jël information da nga téy moment bi surtout waaw ndax moment la te ñi xam eh, élection ñëpp xam nañ ni faveur yeewi la ak loo ci mën di wax coow lu mën di wax ci yeewi yeewi bu demee élection da loolu moom benn bokk yaakaar ñoo la gën a xam boo gisee seen jut jut jéeg seen coow yu bëri yi yëpp loolu dong lay wane kon nag maa ngi wax militant yëpp ñi sympathisant yeewi yeeg militant wàllu yeeg yëpp nañ def tratation ni teg parce que gars yi xam nañ ni coalition bi ak alliance bi arrangé leen lu ñu mën a defee benn nuage ci askanu Sénégal ba ñëpp jaxasoo duñu xam lan mooy lan loolu lañ bëgg taxawal fi mu ni parce que xam nañ ni moom perdre nañ élection yi te demaguñ fenn waaye nu ñu mën a fexe def benn xalaatin bu jaxasoo benn ngëlëmte bu ne ci askanu Sénégal yëpp nga xam ne intellectuel sax dañuy gëlëm waxuma nag euh, ñi xàmmee ñu ni buñ xëy suba daan ni Sonko bàyyi na euh, yeewi askan wi xam nga loolu buñ ko jàllee information mu jàll ñu yéene kaay ko léegi am na koo xam ne ci àll ba gëm na ko déggatu leen lu koy weddi loolu lay jàpp rek dégg naa Sonko bàyyi na dégg naa nangam bu dañu jaxasoo ko dañuy jaxasoo kenn na duñu ànd ñu commencé di wax di analyser di nangam fekk na information yi dara amu ci léegi ñun la ci yéen kaay yi dañ koy bind rek waaye dara du am boo ci toppaar nga gis ne amul kon na gars yi def vigilant xàmmee xam ni information moment yi moom lu ñu la wax waaw parce que dañu ne ci moment boo xam ni moment tiit la bu jógee ci parti au pouvoir te loolu daan mos ci élection nii ak ñu nër façon bi maanaam Macky Sall mënut a gagné élection yi nu mu ci mën a demee day day perdre même bu annulé liste département Dakar day perdre même bu bu demul élection day perdre mën na bañ a dem élection même bu forcé dem élection day perdre kon moom incha allah kon moom yii yëpp moom xam na ni moom benn faveur amu ko leen rek mooy moo des ci solution am mooy mu mu yàq élection yi ko. wala élection yi ñëw ñu jaay doole ci biir élection yi di def ay folklore ay euh, bureau fictive ak yu ma yooyu wala ñuy dugg ci sàcc ay électeur dugal leen transfert transfert d'électeur yooyu rek moo fi desaat waaye yu yooyu moom ni ñu leen waree ndomba nii moom c'est fini waaw c'est kon nag maa ngi wax ne ñëpp nañ ànd ak dal tey déglu parce que politique dafa laaj déglu maanaam sa leader li ngay xalaat di ko wax xam na ko waaye bul teel a jël say say say initiative bopp déglu rek parce que ñoom lu jot dinañ la ko wax fu ñu toll ci paa bi dañ ko parce que ni ngay calculer la ñuy calculer te ñoom ñoo la gën a placé wu pour loolu parce que dañuy tiim document yëpp te xam information yi moo tax li ñu tuddee déontologie parti ak euh, maanaam euh, yaru ànd ak dal dafa baax ci parti lool baax ci militant lool moo tax moment yii na ñëpp déglu ni tekk rek bañuy dugg ci benn intoxication bu kenn publier kenn benn information lu dul information bu faveur sa yeewi askan sa sa coalition tasaareel waaye beneen information bu ñëw bul gëm weddil ba nga gis lu koy confirmer waa ji génn 100 pour cent wax te bu génnee 100 pour cent wax it bu mu tax nga nga dellu ginnaaw sa yeewi askan wax téyel sa yeewi xam ni la tax waa ji di génn moom moo ko xam gis nga fi barki deemu ay ay ay leader yu génn wax kenn ku ne ni man lii kenn ku ne man lii te fi ñu ne ci au fur et leeree da xam kan moo nekk ci dëgg ak ku néew ci kon na ñëpp tey rek kenn gaaw a jël benn position lii lii damay def def nii non non nañ jéglu rek fu ñu mën a toll dañ xam ni gars yi fii lañ toll te gars yi dañ la ko wax nga xam nga mën a cee nga mën cee ànd waaye boo jël teel a jël position teel a commencé di euh, wax loo xam ne ni leeru la wala di teel a yoo xam ne leeru da nga dem ba ci biir rek nga am déception yëg ni dañu naan naxoon te lii na am ci élection yàgg na am ci askan ñu dem ba euh, ñi parti au pouvoir commencé jaxase xelu askan yi lu ne ñu dugg fa information bu ne jóge parce que médias yi dañoo bëri kii day wax lii tey kee wax lee kee yooyu bu tasaaroo ci askanu Sénégal day dem ba day jaxasoo benn benn mag nee na ma man bu njëkk l'Observateur laa daan lire chaque jour waaye léegi damaa dem ba yi bind xamatuma ko damay bind lii gis ne c'est faux li muy bind lii damay lire lii xëy suba gis ñu ne amul affaire yi jaxasoo bu njëkk dañoo kër mu ne ma léegi nu may def ba <laughs> ba man ko ah léegi moom moom gars yi gën a tuuti journal gars yi ci portable dañuy xamee information parce que information léegi jox la ko léegi nag jëmmi fa information bi jógee waa mooy bind ci page am Facebook am YouTube am nga gis wala mu wax ci Twitter am euh, wala YouTube am nga nga dégg wala WhatsApp am nga dégg kon léegi information bi direct la waa ji moo koy génne direct moo tax xale yu bari bari focaliser wuñ léegi ci ay jëndi journal cent franc ki dem di dégg jàpp ay rajo ki loolu mag ña ko desee moo tax man leen nag jëlal leen ci kii yi ngeen am seen information te teylu te xale yi léegi xam nañ information bi rek biirut intoxication yi du jàll seen kaw information boo indi ñu ngi déglu maanaam réponse bi wala contradictoire bi war a ñëw après bi kon nag nañ déglu baax te teylu te bañ a yàkkamti moment bu doy waar la moment bu sensible la moment boo xam ne dafa am tiitaange bu mag a mag a mag ci parti au pouvoir arrangé wu leen euh, tit nañ élection yi ñi ngi organiser élection yoo xam ne danañ wóor ne ñu ci demee dañuy perdre te loolu neexul ci parti au pouvoir di organiser xam ni élection yi ma gañe loolu dafa métti ci yow nga ci sonn waaye xam ne du ma gañe loolu nag moo tax ñu ni moom lu ne ko yëngal lu ne dañ ko jaxase ci réewum Sénégal waaye nit ñi ànd dal rek bis bu ñu teelee jaxasee wala teelee daanu seen i rek dañuy perd li ñu amoon lépp wasalaamaaleykum